a kita mendengar mereka bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengikuti sedih dan menunggu harsanah. ndax képp ku bëgg jiw bu la tegee saraako mu sax ne ko taar la lay def ko doom la o def ku bëgg dara la lay tàggat waaye dangay jiital sam xel te bañ a jiital sa baat sa bakkan bañ a jiital sa bànneex jiital sam xel lépp lu mën a wax sa diggante sa borom nga xam ne yul dañ la su dee àll la nga xam ne biitaan rek la lu dañ la su dee ci sama taar la nga xam ne lu dañ la bu dee lu mu man di woon bu dee bànneex la lu mu doon rek xam ne lu dañ la bu dee kër bu rafet la bu dee oto bu rafet la bu dee soxna ให้การในห้องเด็กรายการในห้องเด็กทุกเดือนนะครับเป็นผู้บริหารที่มาเรียนซึ่งเป็นผู้ที่คุ้มคุ้มนี่เราเป็นยอดอะไรนะครับผมเด็กนะครับผมมีตัวเด็กการในห้องเด็กซึ่งบุตรโดนมีการเป็นประสบการณ์มีเงินอะไรสาวกอะไรคนเด็กเรียกถึงในบุญบุญในข้าวมุกช่วยจุดเด็กสาวคนมุสลิมทำให้เราไม่ได้เงินเต็ม mooy yi nga xamante ni mooy li ñuy jëriñ ëllëg kenn ku nekk ci nga xam ne lu baax kenn duñu ko xam te sonn moom kon maa ngi leen di dégg te biir daal di ci jiital sa bopp nañu sax ci jub ci pas-pas ci kàddu ci jëf suñu borom yi suñu xol gis ci mu muy nax suñu bopp dina loola bokk na nax sa bopp ak wóoro wala amoo dem la la neex dem la la sot boo jëlee ci bu baax defawaat ba teg galam def mel na nga war a mel defe ni dangay nax kenn sa bopp doomu ngay nax ndax yàlla du teel delloo ak yow ci guddi ci bëccëg ci suba ci ngoon te li ngay def lépp mu koy gis li ngay xaar lépp mu koy gis li ngay wax lépp mu koy gis kon suñ borom ñu ngi am gerte gi moom mu yor suñu xol yi ci gis ñu gën wala mu yor suñu kàddu kàddu ñu gën wala mu gis ñu jënd suñu cër nit ñu gën a lépp lu ñu nangu nañ ci jiital suñu xel su fekkee tamit loolee lu yàlla gërëm la lu toog ci suñu xel wala mu toog ci ñu war ñu ko wax wala ñu ko jëf bu ñu jëlee nañ seetantal loolee suñu xel su nañu xam ne loolee dañu ciy jeex mukk ci liggéey bi tey ak ëllëg su dee yàlla gërëm na su dee yàlla gërëmul na nañu xam ne naqar ak fitna ak coono mu yëngu fenn tey ak ëllëg ci liggéey bi yoon ma gannaaw adduna jëm àllaaxira te nit mu mu jàpp yàgg daf fiy jóg te fii kuy jóge ni foofu saaw kon connecté moom day jëndee si xel buntu gi boobu la war si jeex la jëm te xamuñu kañ lay jeexee yoo xam ne foo xëyee mu wàññeeku te xamoo kañ lay jeex war ngay góorgóorlu bu baax di xam ne bu baax ba muy ñëw fekk ci yoon ci yoon la gërëm kañ laa def lu ñu naan ci gerte la njëkk yéen nit ñi ak gerte la mooy tax nit ñi fu mu toll war na waajal boppam kooku yéen nit ñi du ko dégg mukk day waajal sa bopp ci pas-pas rafet day waajal sa bopp ci kàddu yu rafet day waajal sa bopp ci jëf yu rafet seen sëriñ bi dafa wax lii ñu wax nit ñi te ñu bu ne war na ca baxeel te setantal fàttali ngaa def julli juróom ni mu waree ak julli danaa ko ba fàttali ñu itam yàlla fàttali ni ñu war a dugal suñu borom fàttali julli juróom fàtte fàttali aska nekk jamono man toll fàttali ak màkk ci ko ko mën yooyu yëpp fàttali naa la ko ci discours bi nga xamante ni moom la ñu yéene wax na te wax bu am solo loo xamante ni teel a béy mooy liy bari foofu rek la ñuy wax di jëmale muy loo ay mbirum seytaane dong la mbirum bakkan dong la mbirum mbirum bànneex dong la ndax loolu muy sëriñ Tuubaa nee na saa su ma leen woowee delloo leen ci yàlla ba ngeen am yéene góorgóorlu tàkk bëgg a jub seytaane dana jaar yenn ci yéen ne leen seen li mu diwe rek moom taw oran na noonu la toog ci gannaawam rek li mu diwe moom taw oran la toog ci gannaawam rek mooy topp si topp seen tuwaay rek mooy li diwe la nga teg li mu tere nga di ko teg loolu tëral ñu bu ne war na ci bàyyi xel wax yu bare bare bare waxi bakkan dong la waxi waxi bànneex dong la àjjana bi kenn mënu yoon dugg te doo mën yàlla kon nañu jaamu yàlla la te sax ci dëgg te sax ci jub loolu mooy jur nekkoon ci jub jënd sa bëgg sa tànk xam mooy am njëriñ tey mooy am njëriñ ëllëg ku ci ko dund bëgg sa tànk wala wéetoo wees kuñ teg la nit kuñ teg ci daal àllaaxir nañu loolee ko dund am ci bëgg am koy seen tubaab doxul kenn wóorul kenn digul kenn ñu ne ko sa bakkan ak sa bànneex ndax nit ku nekk rek mën ngaa sa bopp dara lay taal ndax boo ne sëñ Tuubaa laa yaakaar yow yenn yaa ngi jëf loo xam ne sa morom gërëm mbindam lépp mooy leeral alxuraan ak sunna si rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li bind lépp loolu kon nañ sax ci njub te sax ci siraatal mustaqima ubbi suñuy dënn yaatal suñuy xol bépp jullit ñu def ko sa bopp amul murit amul xaaral amul tijaan amul laayeen képp ay jullit nan nga def suñu bopp loolu mooy dëgg te loolu mooy am njub te loolu mooy sëñ Tuubaa liggéey فلا تهادوا من رأيهم فاهو يمكن لا إله إلا الله بل نور كم هو أن تجيب ينطار لا إله إلا الله كلو من جيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بخوي يا دردني بسلام لكم بسلام لكم يا ريال بيانا ماني لكم جيب أي ماني بعهد أي ماني سالة لكم كما ستاة سراط المستقيم دولي بخير في الجمالين ku bëgg a jëkkale nit ñi seytaane la wax na lu ñu wax la wut jëf lu nekk jëf lu wut may lu baax dañ daan jëndante lu baax dañ daan waxante lu baax dañ daan bindante te loolu lépp koo ko koo ko seet gis ko koo ko gëstu gis ko lii ma wax léegi te la ñu aussi ak seen say bi fii la daal moom ndax la ñu kii kii doon saa kii kii la doon saa kii kii la kii kii la xanaa teel nga may def sa wax ak kii daal moo jiite man mii daal ma ne koo xam ne amul lu mu jiite fan lañ ko def yàlla mënul seen bakkan ak seytaan yi doon seen waa dem dellu mooy lan Cheikh Ahmed Tidiane biir ñu jiw ko ñu dellu ci daal xaalis ba moom laaj ba moom kon julli ñooñu boole seen bopp xam nañu bopp mooy lan muy islam kenn ku ci nekk fa nga nekk dellu wax lu jub di wax lu kilifa yi jiitu yi ñii ko ñii war a nekkee ci naaj yooyu yi yi ci des ñëpp yi war a wax seen doxin war a wax seen doxin kilifa bu toog laa sa jamono di leen wax lu leen delloo ci yàlla di leen wax lu leen gën ci adduna di leen wax lu leen gën ci alaxira yittoo seen biir diine yittoo seen biir dënn ba seen yaay yëpp mën a yéen kon maa ngi yeesal sama dénkaane kenn ku nekk ci ñun na fexe ni fi mu nekk soxla nañ boole li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax nañu jur nañu jaamu yàlla ba ko ñu gis jàpp tey ñu ngi jóge waaye nañu julli ba ko ñu gis jàpp ñu ngi jóg mukk jaamu yàlla sellal ko mooy sa kaange ëllëg na nga liggéey sellal ko mooy sa kaange ëllëg te yaa yooyu yëpp mu ngi ñàkk ndax nit ak la yàlla mu rafet ci lu mu xam ci lu jàpp am nga jàpp nag léegi moo koy maye dana am solo kon nañ am jom am ngor am diine am islam te góorgóorlu day aaroo jàppale seen i wëriñ ëppale seen i wëriñ wootaale seen i wëriñ ngir yàlla jullit ñëpp bu leen ëppal seen xol kenn du ñaaw bu leen wax seen laaj kenn du ñaaw bu leen ëppal seen jëf kenn du ñaaw li ngeen dugal seen bopp ko koy yëpp jullit ñëpp bu leen rëy ci kenn ba mu doon ci alal ba mu doon ci judd ba mu doon ci xel ba mu doon ci xam-xam nit bu xoolee ba sos ak ñu ñu di tuuti rëy mu te kenn mënul sax muy rëy loo am rek yàlla suñu borom subhanahu wa taala yow ko moom dara day yore rëy buy jënd ci bëgg yi ko ci ndax amul koy def lu mu doon daal suñu borom doon suñu laa jaar na ko sa loxo boo di jësal lu na jàll rek ak ñu ko jënd lu ñuy wax na rek ak ñu ko wax nañu wax dëgg ak lu mu métti métti métti donte wax dëgg te yàlla tax dëgg lu jamono ji juddoo rek la la dëgg yi jur moo gën kon toll wax dëgg donte suñu jëmm boobu la nañu wax wax mu mu nekk suñu xol bu ñu jëf mu nekk suñu xol ngay gisal dañ koy wax tamit lépp bu ñuy yëkkati suñu kàddu ñu nekk suñu xol loolu mooy jikko yu jullit bu ñu dox yàq ab diggante jullit ñu war a booloo war a ànd ngir yàlla day dox yàq seen diggante ab jullit bu ko def te ko koy def du dugg àjjana mukk yàlla rasulillahi sallallahu alayhi wa